ni Ousmane am na fa jëwriñ Serigne Cheikh Fall di baayam di sëriñam mooy jëriñu Serigne Amdi Fall moom sëñ Modou Mbengue moom la ñuy wax sëñ Cheikh Ndiaye Mbengue waaye njabootu Cheikh la Fall gépp ñu ngi lay xamal ni ah? nee am nañ mbégte mu rëy nee na ñëw gi ci liggéey Cheikh la Fall sëñ Fallou nee na mi ngi ñaan ci barkam Cheikh Ibrahima Fall. sama borom sàmm la. amiin amiin te musal la. te musal la. amiin dafa lan lam ba li ngay wut nga am ko. ba liggéeyee ci lislaam. liggéeyal sëñ Tuubaa Cheikh Fall. liggéeyal ci réew mépp. Ousmane. sëñ Fall nee na. nga dalal sam xel. ñëw nga kër Cheikh Fall. ñëw nga kër Cheikh Ibrahima Fall tey. ci ndigalal sëñ Tuubaa. nee na fii la ñu yokkoo. fii la ñuy jariñoo fii la ñuy mucce kon yàlla nga yokk Ousmane yàlla nga mucc Ousmane yàlla nga jariñoo Ousmane nee na ngay wut yàlla ko sa borom Fallou Fall tey nga liggéey sëñ Tuubaa Seero Fall nee jërëjëf Déthié Fall Déthié Fall Déthié Fall bi nii am ngeen ko bu baax ci kër gi la bokk waaw sët la bi waaw ñaanal ko sëñ Fallou Fall mi nga xam président ñaanal na ko jërëjëf Fall bu baax jërëjëf di moom ñaanal ko bu baax. waaw déedéet ñu ñaan ak ñun ñëpp. waaw waaw Sénégal la yaakaar naa ndam la seet yàlla ndam di mujj. amiin lii Cheikh Tidiane docteur Cheikh Tidiane Dieye. Cheikh Tidiane Dieye Dieye Dieye. waaw ñoo ngi ziar bu baax ñoo ngi ziar bu baax di leen ñaanal yàlla.